dal leen ak jàmm mbokk yi dañuy ñëwaat si li nga xamante ni mooy si wàllu politique ak ñi nga xamante ni ñooy coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñu ngi gën a duufal seen ginnaaw ba ñu amee ay alliés de yoo xamante ni Benno Bokk Yaakaar rek lañ nekkoon waaye nag jamono ji dafa mel ni rejoindre nañ nañ li nga xamante ni euh, mooy euh, parti au boo xamante ni wala sax parti opposition boo xamante ni euh, jamono ji moom rek la ñu gën a gëm ni mu daaneel li nga xamante ni mooy régime bu Macky Sall ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Baldé bi nga xamante ni dañ ko xamee woon ancien maire de Ziguinchor moom rek ñëw na bokk si li nga xamante ni mooy si rang coalition euh, Yewwi Askan Wi jamono ji rek nga xamante ni dañoo defoon ay résultats yu am solo loolu foofee ci élection locale yi ñu mujjee génn waaye nag ñuy préparer li nga xamante ni mooy élection législative yi nga xamante ni fii rek moo des ñu dëgmal ko fii si Sénégal ñoom nag bëgguñu dara dul ëpp li nga xamante ni mooy majorité foofee ci assemblée euh, nationale ndax ñu mën a euh, néewal doole ki nga xamante ni mooy président de la république République du Sénégal bi nga xamante ni moo jiite coalition euh, Benno Bokk Yaakaar waaye nag gis nañ ni ki nga xamante ni mooy euh, Ablaye Balde na ñi euh, ko sa Ziguinchor mu doon loo xamante ni nouvelle bu baax a baax la si ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko même ñi nga xamante ni gañe woon nañ kii di Khalifa Sall ak keneen ak keneen ñoo xamante ni jamono ji ñoo nekkoon parti au pouvoir Benno Bokk Yaakaar waaye nag kat li nga xamante mooy coalition

xamante ni mooy coalition Benno Bokk Yaakaar si élection locale yi nga xamante ni passé nañ ko ñu ngi waajal nag yeneen arme offensif wala sax euh, défensif yoo xamante ni dañuy jàmmaarlu ak ñi nga xamante ni ñooy Benno Bokk Yaakaar ngir gañe loon lépp loo xamante ni élection la ñu teg ko fii si Sénégal kon nag mbokk yi li la leen indiloon si xibaaru politique jàppale ni ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Baldé jóge na si coalition Benno bokku Yaakaar dam foofee ca coalition Yewwi Askan Wi si ñoom Ousmane Sonko